seraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa bilaab écurie Rock Énergie Rock Énergie bu le roi des arènes Modou Xarañ Lo seen bilaab ren baaxul jege wut baax sept combat la def benn victoire six défaite Rock Énergie saison bii ñu génn da caa suux ba xolam set écurie ba dafa suux kenn tegu ko bët ci saison bi loolee moo waral journal ba xëy ne une victoire six défaite naufrage à Rock Énergie bile écurie daal dafa mel ni Modou mooy l'arbre qui casse la forêt espoir ya nekkoon ca écurie ba ñu leen doon yaakaar ya fa nekkoon ñu leen di leen bile bilan ba Rock ngi boole benn victoire ba ñu jot am armée 2 moo daan bulondi seen six défaites ya moustique bu jimboor yi dafa daan boy yikini bu seex baba daan marle mbaytil senior bu moor fadam daan daam suger 2 amet lacrosse bu bada daan putiloo fils de max daan mawdo milko bu kër masaar mbooloo daan bébbe xarañ seen cadre ya waroon tooyal seen gémb kenn bëréwu ca du mooduloo roi des arènes du laay pitagore du jegaan ba ci mooduloo junior bëréewut amul cadre de travail bu tegu ci yoon mbëri ñoo war rey seen bopp liggéey indi ay ndam li am ba des mooy bile bilan ci làmb kenn dootu ko fàtte écurie Rock Énergie bëre nañ juróomi weer amuñu sax 10 combats bëre 7 combats yépp di ay défaites te ko wax Rock Énergie wax écurie bi le roi des arènes nekk li ni ci taarixu làmb bu dee am na it bariwul bu ñu jàllee ca Tapha bu yeboo yokk cere dolli ñeex Tapha bu yeboo fu mu xam na fa dugg Tapha tax mu jël avance bi ñiy wax naan Boy Niang 2 dafa jël risque jël tafaatin nañu xam ne àdduna lépp risque la te tubaab bi nee kii ne tente rien à te ñun am nañ yaakaar am nañ njort bu rafet ne victoire bi day ñibbisi Pikine waaye tafaatin na xam ne avance bi Boy Niang lenn képp tax mu jël ko mooy daan ko bëree ko xeex loo ko daan ko loolee ñu dugg ci saison mooy RTS ITV stv ak TFM yi la télévision ku ci nekk signé nga ak promoteur ITV depuis saison gannaaw partenariat bi mu am ak jamaykee moom dafa dugg ci làmb ji créer structure am di Sénégal Entertainment Group organiser combat bu réy boobu diggante guy géeg rëk-rëk moom gis nañ ko ak Mamadou Dieye Sène te Vox Arena mi bay waaram ci làmb ji bëgg naa liggéey ak 2STV ak Bantamba bu dee RTS télé bu mag bi bu yàggul lañu ko gis mu ànd ak Pape Thialis combat yu mag yi Leewtoo taxawal diggante Tapha ak Boy Niang diggante Garga Mbossé ak moo fa nekk journal ba xam le ne télé yi dugaat nañ ci làmb ji di préparer saison 2020 2021 kay préparer intégration ca MMA mooy Samba Ndeleng 2 gannaaw ba mu daanee Boy mu ngay liggéey di entraîner ànd ak club MMA ITF bu Dakar bi les jeunes dafa bëgg wane boppam def lu kenn deful fa nuy jeexale mooy ca xeeru ngóor de combat ba muy waaj digganteem ak Boy Diop gannaaw ba mu jógee ci boo Yëmbal daanoon ko par décision arbitrale moom xeeru ngóor de digganteem ak Boy Diop taxaw na mu ngay xaar confirmation ba dafa bëgg a wone boppam woon ñépp ne ndaanaan la jërë ngeen jëf mbokk yi li moo nekkoon li gën a fës ci ëttu leen jox dig daje ba ëllëg incha